ku ci ganam gi nga xam ne ci dogaloo suñ borom yàlla def na tey mu jiite réewum Sénégal président de la République di Bassirou Diomaye Faye ak mboolem délégation bi mu àndal bépp bàyyiwuñ ci kenn tudd nañ ko tudd nañ ko léegi. ñenn ji di bokk moom liggéey bi njëriñ si ak njabootam di doomam nekk ci biir dëkk bi sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci dëkk bii nga xam ne.